bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ca loxarlu yu seen mbokk Alioune Badara Socé Sud FM seen rajo ci seen jataayu tafsir mi leen defal aji mu jot waxtu wi dellu su ne ci kàttanu sunu borom tabaaraka taala ji leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bañ seen taal subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi mi nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak dara gàmm ngi dem na bàyyi nu fi bu dul soit yàlla ñu fi fekk ñu fi fekkoon daaw te fekku leen fi ñu ci tukki yàlla na ñu bés ci jàmm te indi dara ñu fi fekkoon daaw te fekk fekk leen fi te ñu nekk ci tawat yàlla na borom bi saafara leen ba ñu dellu si at seeni bokk ñu fi fekkoon daaw te fekku leen fi ca faatu yàlla na borom bi yërëm leen waaye fal suuf ci seen kaw mbokk yi ñoo ngi ci suratu najm suratu najm muy surat numéro cinquante-trois ñoo ngi ci aaya 32 waa ni ñu koy baax ji defe mooy jàngal ayaat door a ñëw ci jéem a firi ak jéem a tekki auzu billahi min ma fi samawati wa ma fi l ard liyajziya alladina asaa'u bima amilu wa yajziya alladina ahsanu bil husna alladina yajtanibuuna kabaira al ithmi walfawaxisha illa allamam inna rabbaka waasicu lmagfira huwa aclamu bikum is anshaakum min al ardi wa is antum ajinnatum fi butuuni ummahatikum fala tuzakkuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa sadaqallaahu al-aziim wa ballax rasuuluhu al-kariim wa naxnu ala ma qaala rabbuna wa mawlaana min ash-shaahidiin allahumma ij'al al-qur'aana lana fi dunya qarina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyaamati shafii'a wa ala siraati nuura wa ila al-jannati rafiiqa wa baynana wa bayna sitran wa hijaaba wa ila al-khayraati kullihaa daliilan wa imaama bi fadlika wa juudika wa karamika yaa akramal akramin mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot tabaarakallahu ñu ngi jégglu soxna yeeg sëriñ si di ñaanal sëriñ yi daara yeeg dongay daar yeeg yaayu daar yi suratu an najm a ngi toll ci aaya fanweer ak ñaar ci la borom bi doon wax naan su ngeen moytoo bàkkaar yu mag yi ma baal leen bàkkaar yu ndaw yi ndax man ku yaatu sutura la te mën a baale nee na nee na ku nuy xam nu gën a xam waaw te kursuta kenn nag ci xam gi nee na ndax moonu sos ñu jóge ci suuf sos nu ci biir yaay nee na bu kenn bàkku ku bàkku yàqule faletu sa ku abu sa kum bu fi kenn bàkku ku bàkku yàqule waaw koo ci xam ni ragal nga ko moo la gën a xam waaw ragal naa kook nii laa toll ci moom nee na jër te wax wa alamu bikum mbokk yi tabarakallahu ñu toll toppoon loolu ñu tuddee kabair ndax nu xam ko man koo moytu ndax mu baal nu bàkkaar yu ndaw yi yal na nu baal yu mag yi baal nu yu ndaw yi bi nu fi mujj ci jamono yële lu jiitu nuy génn ñu tegoon suñ baaram ci kabira bu tudd lor dëkkandoo moo doonoon juróom fukkeelu kabira ak ñaar yu ñu war a moytu mu di lor dëkkandoo nu dégg la ci yonente ba wax ku gëm yàlla gëm alaaxira du lor dëkkandoom ku gëm yàlla gëm alaaxira du lor dëkkandoom ku sëy dëkkandoo di moytoo ka daw baaxoo mu ne ku def noonu baaxoo waaw kuy séq ak sa jabari dëkkandoo baaxoo waaw ku say dëkkandoo naan baaxoo baaxoo <laughs> waaw ku say dëkkandoo naan baaxoo baaxoo ku ub sa buntu ndax bañ say dëkkandoo ñëw sa kër baaxoo waaw ku neex ku ku kenn munta dëkkalit baaxoo yooyu lañ njàngoon ci kabira boobu weesu tey nu war a new ci bi ci topp muy juróom fukkeel ak ñett muy alal muslimina wa shatmihim lor jullit yi ak saaga leen waaw bàkkaar bu mag la bàkkaaru lor jullit yi moo xam da jël ngànnaay lor leen moo xam da nga leen lor ci sa loxo moo xam da nga leen lor ci say wax moo xam da nga leen lor ci mbalit moo leen di xëpp seen kër moo xam da nga leen lor ci jëw leen yàq seen der yooyu yépp bàkkaar bu mag a mag la boo xam ne mën naa jural nit ki ëllëg dumaay boromam tabaaraka wa taala yëkkati sa kàddu ŋàññ leen walla nga xas leen baa nga saaga leen ni ko penc mi ñemee léegi waxut nag ab sëriñ waxut wàlliyu waxut xut bu zamaan waxul imaam ustaas jullit rekk la wax lu jul ba ñàkk-ñàkk solo même su fekkee nogay la waa mbaa bàcc mbaa mër xujje noonu la ñu mel loolu nag borom bi ngir bañ ñu dugg ca ngir bañ ñu dugg ci yooyu dafa am aw saar ci alxuraan wu tudd alxujuraat borom bi wax ñu ci yim ciy bañ ndax ñu bañ caa dugg ndax dugg ca yooya fitna la ci nun fitna la ci ka ciy dugg mu wax ca saar wa ay barab yu bari bokk na ca lor ab jullit la tàmbalee walladina yuduuna al muminina wal muminat bi gayri maktasabu faqad ihtamalu buxtaanan wa ithman mubina mu nekk lor ab jullit bu góor mbaa jullit bu jigéen telóoru la ku lor jullit bu góor mba jullit bu jigéen telóoru la bi xayri maktasabu saaga ko te saaga wu la ko te xasu la wax ko te waxu la kon lor ab julit ci bàkkaar yu mag yi la bokk bi xëy na mag tasabu mooy tëlëru la loolu sunu borom tere na ko ci saar woowu euh, tere gu fés daw koy li na war mu teg ceen yaay lu seen amunu laa yasxar xawm min xawm yéen jullit yi tere naa leen góor guy reetaan góor ni moom walla ay góor ñuy reetaan ay góor ni ñoom ree ak reetaan nag du benn reetaan moo xaraam waaye ree daa dagan ree day faj reetaan day yàqum pénc lan mooy reetaan reetaan mooy ku gis koo xam ne dangaa jàpp ne nangam daa manqué ci moom nga di ko reetaan benn muy ay cër walla muy am xel mbaa muy am am ñett yooyu saa boo ci reetaanee nit mën nga ko reetaan fekk moom moo la gën ndax moom ma ngay nab nabi ka jéem a jaar ci yoon ma ngay nab nabi ak a jéem a jaar ci yoon nab nabi moom ma ngay jàng diineem ma ngay jéem a jaar ci diineem ku dem ki koy reetaan moom musta xëy jéem a jaar ci diineem waaye daal jàpp na ne ci àdduna moo ko gën a jekku àdduna jay ko seytaane jay ko ba tax moom mu jàpp ne lii mu jàpp noonu la borom bi tagaat ca wala nisaa um min nisaa bu aw jigéen reetaan aw jigéen ni ñoom ndax xëy na jigéen ñi reetaan seen moroomu jigéen seen moromu jigéen ma gën leen léeg-léeg jigéen mën naa reetaan moroomu jigéenam ci nee muy def bokkut ak moom ni muy def waaw bokku leen lu ngeen di solo peut-être bokku leen fu ngeen di fréquenter peut-être bokku leen ay comportement peut-être ba tax jigéen da di ca ree moroomu jigéenam sunu borom nee na mën naa am ñuy reetaane ña leen ña ñuy ree gën leen waaw ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne kii mu ngi reetaan jigéen ci ak colam jigéen ji daa sol lu fat sol lu jaadu sol lu yaatu sol lu jot waaw muur boppam mu am jigéen jox xam ne lam sol xat na lam sol peut gàtt na lam sol peut-être yaraax na bopp ba dara nekku ci waaye ñaare kimel nii mooy reekee li ci ëpp wa sa marru bihim yataxaamazuun wa sa nqalabu ilaa ahlihim inqalabu faakihiin kon kii nab nabi ca lee sunu borom nee na mën naa am mu gën ki ca nab nabi wut waaw ndax kii lu bon bon ma ngay sàmmoonteeg col ga na fatt na yaatu na jot bopp ba na ca dara nekk kee moom faaliwut yooyu ba noppi nag seytaane dana ko jàppale ba layal ko ci lim nekk moom layal ko ci lim nekk ba mu am fitu di ree di reetaan kee di reetaan kee ci góor ñi ak ci jigéen ñi àdduna mam si tubaab daf daan wax ne wax fi nit maa la gën teel na nañ bàyyi ba yomal xiyaam yomal xiyaamee ba ñëpp dekki nit ñiy dugg que njëkk a dugg aljanna xool la yow duggagoo bu la waxee maala la gën wala maa la gënoon war nga koo mën a gëm waaw waaye fii nag moom nee na euh, loolu mën na fee ñàkk mbokk yi maa ngi ci suratu najm maa ngi ci ay 32 allazina yajtanibuna kabair al ithmi wal faahish illa lamam inna rabbaka waasiul maghfira maa ngi ci benn kabira boo xam ne mu ngi tudd lor jullit yi ak ŋàññ leen kabira bi mooy juróom fukkeel ak ñett nong ci ci ànd ak euh, muharrixul islaam al imaam al xaafis Shamsuddin Azahabi moom lañ ci àndal borom bi teg ci ne wala til wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum bu leen bu leen ayibal seen bopp waaw bu leen ayibal seen bopp xam nga ku dégg maanaam yi wala talmisu anfusakum bu leen ayibal seen bopp da yëg ne ki jàkkaarloog nit di ko ayibal jullit bi jàkkaarloog jullit di ko ayibal yëgut ne boppam lay ayibal yëgut ne ensemble bi mu bokk ak kii nekk moom benn élément la ci moom tam mu nekk ci benn élément man ba ma tàmbalee dawal oto ba léegi musuma dégg suma pneu yi di xuloo pneu yi du di xuloo bi ci góos ma nga ca kanam ak gannaaw bi ci droite ma nga ca kanam ak ginnaaw secours baa ngi ci ginnaaw moom daal fii ba cil ma xam mbaakol yi duñu xuloo lu tax kenn ku ne ma ngi ca rek fas ko yéenee def waaw secours bi ne maa ngi seen ginnaaw yéen ñëpp laa ñëpp laa yemale sàllaaw ku ci kër we rek ma ñëw jël place am <laughs> allahu akbar waaw ruy oto ñoo gore waaw ndeysaan njoogu euh, géey ruy oto ñoo gore ñeenti ruu ak secours bi muy juróom oto bi daw secours yi euh, roue yi bu ci nekk rek taxaw sa place poste bi ñu la te bi ñu la bi la teg ca ngay nekk euh, secours ne leen dox leen man yéen ñeent ñëpp yéen yem ci man ku ci kërwe rek mu ñëw jël la sa place ba baa ñu lay defaraat ba noppi ndeysaan ay ñu ñëw am ngor noonu ruu yi mel nag la sunu borom bëggoon nu mel ko mooy kenn ci noonu bu mu sikkal morom ja ndax post biñ koy def loo ma nga ca waaw bu mu sikkal morom ja post biñ koy def loo ma nga ca walla talmizu anfusakum waaw alayhi salaatu salaam fiiri na ko ci hadis al muslimu mir'atu axi jullit mooy seetu moroomum jullitam jullit mooy seetub moroomam jullitam wala mooy seetub mbokkum jullitam ku taxaw ci kanam seetu rek gis jenn waay ca seetu ba waaw waa jooju ngis ci seetu bi sa jëmm la moom nga ko jàppe ni nga jàppe ko ci seetu bi la sallallahu alayhi wa sallam nga jàppe ko sa moroomum jullit ndax ki ci seetu bi nga jàkkaaroog moom lu sikk ci aw yaramam danga ko defaral te doo ko defaral moom ma ca seetu ba yow ca sa bopp yaay defaru mu defaru waale ca wala talmizu anfusakum naa ba tanaabasu bil alqaab bàyyi leen yàq tur bokk na ci lor ab julit yàq aw turam bokk na ci lor ab julit yàq aw turam ku ñu tuddee alxaaji malik nga naan ko milk yàq nga turam lor nga ko te it bu bu bu kayitu juddoom wala bu kàddanteem defee alxaaji malik alxaaji malik njaay waaw aminta mbubb mële daal koy yónnee mandat daal cee def milk waaw lu ca jot bu demee fu ñuy joxe xaaj yi du ci jot dañ naan ko tur wi bokkut ak tur bi yàq tur ak loraange la am na ñu yàq seen tur ñu far làggi ca te nun turi tubaab yi daf noo gënal suñ tur yi moo tax luñ la mën a tudd rek ñu ñu loggalal la ci aw tur tubaab waaw wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqaab aw tur daal mooy kero bi nga xamee ne nit ki gane na àdduna bis ba dellusi ñu wut xar mu baax woo ilimaan notable yeeg ña ca koñ ba yépp ñëw ñu jox ilimaan liir bi mu nodd ci noppam day jor li xam ci bu càmm ñu wutal koo tur tur woowee mooy dox tur wi la école di wutal mbaa mbedd mi mbaa sport bi mbaa musique bi tur yooyu yépp ay tur la yoo xam ne bañ koo tudd bañ koo wuyoo moo gën waaw bañ koo wuyoo moo gën wala tanaabasu bil alqaab bi isal ismul fusuuq baadal iman waaw suñu borom ne ne su boogul seen siir nooyi bi isal seen siir nooyi suñu borom nee na su boogul seen siir nooyi waaw siir nooyi ak tur yu njàq yi wa lam yatub ku ko tuubut di wooxee nit siir noo wala moom borom tur bi mu di ca wuyu ba dugg bàmmeel fa ulaikum zalimuna ñu ñooy tooñkat yi ñooñu la seen bàmmeel nar a lëndëm su ëllëgee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi borom bi kon fii ñu toll ci wàllu lor ab julit tere na ca e, reetaan ko tere na ca sikkal ko tere na ca yàqu turam yooyu yépp ndekete lor ab julit la reetaan ab julit lor ko la waaw reetaan ab julit lor ko la sikkal ko lor ko la yàq aw turam lor ko la bokk na ci lor ab julit wala tajassasu lu ñutu lu ñutub julit reju ko jéem a xam ci lu mu nekk topp tànkam waaw léegi mi ngi xew ci pénc bi léeg-léeg ci téléphone yi la ko nit ñi di defee jéem a localiser nit waaw bu dee jabar jëkkër sax daa xaraam waxuma laa keneen jéem a localiser nit xam fan la nekk waaw téléphone yi ñu ngi ñu koy jàngal waaw lu lu garaaw ngi ñëw ci ci téléphone waaw ndax téléphone fi ne daf noo déclarer guerre tubaab maanaam nit nit daa defar téléphone ba noppi téléphone déclarer ko guerre waaw téléphone bëgg yàq relation yi téléphone bëgg naa yàq diggante yi téléphone bëgg naa yàq sëy yi téléphone bëgg naa yàq confiance yi téléphone a ngi yàq rek téléphone mi ngi yàq rek waaw léeg-léeg mu jëleb jullit ci njullite yóbbu ko ci leneen léeg-léeg mu jële ko ci jàmbaar yóbbu ko ci ñeneen léeg-léeg xale yi jàng ci kër gi di am note yu baax bu ñu amee téléphone note ya yàqu ndax lan seetaan tiktok waaw seetaan nangam seetaan nangam ba dox sa digganteeg say say war-war wala say farata mbokk yi wala tajassasu bu leen lu ñu tonte bu leen lu ñu tonte waaw bu leen lu ñu tonte wala yaxtab baadukum baada bu leen jëwante ndeka jëw ab julit ci lor ko la reju ko ak gëstu ci lu mu nekk ci lor ko la yooyu yëpp borom bi daf koo tere subhaanahu wa taala ci alquranul karim euh, bëgg jullit yi bàyyi ci xel waaw bu ñu lor benn jullit bu ñu reetaan benn jullit bu ñu sikkal benn jullit bu ñu yàq turu benn jullit bu ñu luñutu benn jullit bu ñu jëw benn jullit loolu ay aayaat la ay ah ay kalimaat la ci alquranul karim waxi borom bi subhanahu wa alayhi salaatu wasalaam wax ci adis hadis boo xam ne muttafaqun alayhi bokk ci adis yi sunu yaay Aïcha radiallahu anha lafz bi nag lafzu la ma nga ca kitaabul ëdëb bokk ca saxiixul Buxaari mu wax ne inna min charri nnaasi manzila inda allahi yowma alxiyaama man wadaahu nnaas aw tarakahu nnaas ittiqaaha faxshihi ne na nit ñi ki ci yées nit ñi ki ci gën a bon yées ci gën cee bon wàccuwaay fa sunu borom tabaaraka taala mooy koo xam ni kii nit ñi bàyyi nañ ko ndax mucc ci waxam ju ñaaw nit ñi bàyyi nañ ko ndax mucc ci euh, lamiñ ba vulgaire loolu la hadis bi aaya mooy nit warta def lamiñam warta ñaaw mu jàpp ne am na sañ-sañ ba am na fit wa daal di jàpp ne nit ñi ñoom dañoo amutu fit léeg-léeg seytaane def noonu nit ñoom dañoo amutu fit yow mi jàpp ne yaa amu fit nga xam ne lu ko neex wax seytaane moo bëgg a liggéey foofu waaw nit nit warta doon sañ wax warta doon koo xam ne kii lu ko neex wax nu ko ko ne ko neex waxe ko noonu déedéet euh, sunu sëriñ ba sëriñ Pape Malick si moo daan wax loolu mu ne nit balaa muy wax na war naa wax li war naa xam li muy wax fi muy wax ñi muy waxal yooyu yëpp war na koo xam waaye yonent bi wax na fii ci hadis bi in min charri nnaasi manzilatan inda llahi yawm alqiyaama man wadaahu naas aw tarakahu naas ittiqaa fahshihi kii daal li tax nit ñi bàyyi ko mooy waxam moo rafetut kàddu moo rafetut tabarkalla wa qaala sallallahu alayhi wa sallam ibadallah inna allaha wadaa al xaraj illa man iftarada bi bi irdi axihi wa dalika la si xaraja aw hëlëg aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam oustaz Cheikh Tanja yonent bi daa wax ne ee eh, yéen jaam yàlla yi am na ko yàlla nangul ngànt nangul na ngànt ñépp ba mu des ki ngànte ngàntee derub jullit ni moom kooku moom alku na waaw nee na yàlla nangul na ngànt ñépp ñépp la nangul ngànt waaw loo mën a wax mën a la koo baal waaye ki yàq derub mbokkum jullitam nag kooku moom xëlëka waaw kooku moom du ko ko baal loolu la yón la wax subhanahu wa taala mu ngoog kooku moom su boobaa du ko ko baal waaw yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci waaw nañ ci mucc ngeen mucc ci wa fi lxadis kullul muslimi alal muslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa irduhu rawaahu muslim wa tirmisi min hadisi abi hurayrata ba ca tarxiib waaw dafa wax ne léppi hmm? jullit daa xaraam ci bépp jullit waaw daa xaraam ci bépp nga ne ha mu ne waaw léppi jullit jullit ñett yëf la am deretam alalam deram jullit ñetti yëf yooyu la am deretam alalam deram derub jullit daa xaraam ci jullit yëpp derub jullit daa xaraam ci jullit yëpp ku yëkkate kàddu teg ci sa derub ci sa euh, maanaam ku tuur dereti jullit ni yow sa fii yàqu na sa fële yàqu na damuhu ku tuur dereti jullit ni yow sa fii di àdduna yàqu na sa fële di alaxira yàqu na yépp a yàqu kullul muslimi alal muslimi xaraam damuhu la la jiital jullit du tuur deretu moromum jullitam benn wa maaluhu alalamit daa xaraam ci moom alali jullit daa xaraam ci jullit xanaa mu jot ko bi bi tiibi nafs mu jox la ko ci ci teeyu bàkkan loolu amul problème wa irdihi akub deram derub julit daa xaram ci julit kii wax ci ab julit di yàq ab deram mu ngi koy lekk loolu la alxuraan jàngale kii wax ci ab julit di yàq ab deram mi ngi koy lekk waaw maa ngi suuratu najm aaya 32 maa ngi ci allazina yajtanibuuna kabaaral ithmi maa ngi ci bàkkaar bu tudd lor julit yi ak ŋàññi leen wala bokk ak saaga leen waxaale sallallahu alayhi ci buntu boobu al muslimu axul muslim jullit mooy mbokkum julit waru koo tooñ waru ko seetaan waru koo xeeb allahu akbar laa yadlimuhu wala yaxdiluhu wala yaxqiru ab julit julitee mbokkam wuru koo tooñ mbokk yi julit du tooñ moroomam julitam julit du tooñ mbokkum julitam déedéet benn ñaareel ba waru koo seetaan geccil ko geccil ko mooy mu ne ci dara munu ci dara nga toog tey ñi toog ci garan place bi am ku otoom nuwaaye wala mu fay ba tëri ba nàngam daganul cib jullit ñoom ñëpp ñu toog di ko seetaan la dagan mooy ñëpp jóg puus la ko oto ba mu tàkk ñu del si toog waaye loolu c'est pas c'est pas facile loolu yombut danga nga gis ko naan ah comme bu nu rombee du nuyu de man du ma jóg ndekete yow bu la rombee nuyu la bu la nuyut mooy ci bokk yam loolu lislaam sant mooy jógal nga jàppale ko laa yaqdulu képp ku yàlla baaxee ba nga ba ba nga àgg ci niveau boobu waa ji nuyu na maa ngi nuyu ma du sa affaire déedéet yow li la war mooy ma nga ne jaaxle addis ba ne la bul ko seetaan la la diina dina sant mooy nga jóg jàppale ko puus ko mu tàkk bu dee lu ñuy puus la ak lu ñu mën di defit su boobaa loola da nga cee jóg boo demee ci saalum ci saalum saalum saalum yi eh, bu nit nekkee ca dëkk ba nawet si fa walla mu dëkk fa ñax mi ëpp ko doole ci toolam waa dëkk ba yépp a jóg may ko ngonnal songu tool ba tàggaleeg euh, mbay maag ñax ma ñëw toog seen kër léeg-léeg moom moo koy santaane togg ay ay reer waaye léeg-léeg du ko santaane nit ñaa koy defal ku ci ne delloog sab gopp wala yaxiru ab julit du xeeb moroomum julitam ab julit mbokk yi du xeeb moroomum julitam loolu tam seetaane nga koy tàmbali dugal ci biir mbir mi xeebant bi bari na yonent bi nee na bi xasbi mbir in min acharri an yaxqira axaahul muslim mu ne bi xasbi mbir in min acharri waaw ak mbon a ngi yem ci julit bu xeeb moroomu julitam ci la mbon yem ak mbon mi ngi yem ci jullit bu xeeb moroomum jullitam ndax jullit bu xeeb bu amut waaw jullit jullit bu xeeb bu amut al muminul qawiyu wa fi kullin xayr wa fi kullin xayr kon nee na eh, ak mbon a ngi yem ci jullit bu xeeb moroomum jullitam waaw foofu la ak mbon yem allahu akbar yàlla ñu ci àlla musal ngeen musal ngeen mucc ci addis boobu muttafaqun alayhi mi ngi bokk ci addis yi ibnu ab ibnu mas'ud radiallahu anhu waaw ca taxrij nañ ko ci al ihya li imaam al ghazali ci ihya ulumuddin andi nañ ci addis boobu taxrij nañ ko fa pour wax ni diw ak diw ak diw noo ko solo mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot yàlla nañ gis sunu bopp ci lii man cee doxe jubbantiku man cee doxe defaru kiy wax wax ji moo fi ñëwoon bërki démb salawaatullahi salaamu alayhi àllarba lañ ko doon célébrer defe nañu luñ koy waxee àllarba ja a tege ci la ko waa njaasaan doon taxawee ñoom it dikra mawlidi rasuli alayhi salaatu wasalaam moom nag wax yi may wax yépp moo ko wax xam naa buñ ñu tasee ci gàmm euh, di fàttaliku yi muy wax dana nekk yóbbalu ñëc fa ñëw loolooy gàmm waaw tabarkal alayhi salaatu salaam daa waxaat ne sibaabul muslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufr nee na saagab julit saay saay a koy def xeex ak moom yéefar a koy def hm? saagab julit saay-saay moo koy def ci waaw saaga ab julit naa mu ne ko saay-saay moo koy def ñu ne waaw mu ne xeex ak moom yéefar a koy def allahu akbar ndekki ab julit kenn du ko saaga kenn du xeex ak moom ab julit kenn du ko saaga kenn du xeex moom loolu ci lor la bokk te lor ko daa xaram wala zina yuzuuna al mu wal muminat bi xayri maktasabu waaw ñu jële ci abu hurayrata radiallahu anhu abdurahman ibnu saxr dañoo mas a ñëw ci yonente bi alayhi salatu salaam di ko tàggee seen soxna dañoo mas a ñëw ci yonente bi alayhi salatu salaam di ko soxna biñ ko tàggee soxna si ba noppi ña ne ca barab ba di di seede soxna si waaw di seede eh, soxna si ñu ah, julli day kenn dàqu ko woon ndax moom de guddi gi moom daana ci naafila nangami rakka loolu la wax yonent baa ngi toog ñu wax loolu ca soxna si ak mënoon guddi moom de buñ masaana ba noppi julli sàllaaw du gaaw a tëdd ñu ne ñu naa ah, ñun ñu dëkk moom de gis nañ ne tasoo mun na xaar daf daan woor bëccëg limuy muy li muy añ bariwut ndax bari ak koor kon soxna si mi ngi mi ngi naafila guddi mi ngi naafila koor koor yi ngàtt nga yi kenn mënu ko ci naafila guddi kenn mënu ko ci moom soxna si am ku ne wa tuzi jiraanaha bilisaaniha ñu ne waaye làmmiñam wi daaw ko teg gi ci dëkkandoom yi làmmiñam wi daaw ko teggi ci dëkkandoo bi fu mu toll ma ngay wax ca dëkkandoo yi wax ju rafetut ma ngay wax ca dëkkandoo wax ju jubut ma ngay sikkal dëkkandoo ya ma nga leen di lim yonent ba daal di arrêté wax ja ñu may leen ma may leen ma ñu may ko mu ne laa xayra fiihaa waaw jooju jigéen baaxut laa xayra fiihaa jooju jigéen baaxut moo ana julli ya ana woor ya wax jim daan wax ci dëkkandoom làmmiñam wee tax mu yàqu xam naa nogay kon bu yow mu góorgóorlu <laughs> nogay bu yow mu góorgóorlu de laa ilaha illallah allahu akbar soxna si dañ koo tagg ci ay julli tagg ko ci woor ŋàññ ko ciy dëkkandoom salawatullahi salaamu aley effacé julli ya effacé koor ya ne laa xayra fiiha soxna soosu baaxut ku mel ni moom baaxoo ba tamit nag teg ci ne hiya fi naari ma nga ca sawar yàlla di ko lakk lu ko ko yóbbee loolu yi dëkkandoom loolu yi dëkkandoom moo ko ko yóbbee allahu akbar alxaakim nee na wér na waaw alxaakim nee na wér na ibnu xibbaan nettali na ko ahmad na ko albazaar nettali na ko waaw alayhi salaatu wasalaam ci beneen hadis boo xam ne bii ma nga ca risalatuhu as-suxra risalatu alxaakim as-suxra hadis baa nga ca alayhi salaam di wax ne udkuru mahasina mawtaakum wa kuffu an masaawiihim alayhi salaatu wasalaam nee na wax dee leen waxtaane li seen néew yi rafetle dee leen waxtaane li seen néew yi rafet la rafetle euh, nun nag léeg-léeg dañuy defe ne bu ñuy seede ca bañ koy jullee rek la déedéet ki xas faatu bañ denc ko la yonent bi bëgg képp kuy waxati ci moom la nga xam ci lum def ci lu rafet loola ngay wax la nga xam ci lu mu def te rafetut nga noppi ca waaw yàlla xam na lam rafetle ak lam rafetlewut nit mën naa am lu rafet ak lu rafetut bu nit xasee sàngoo suuf nag yonent bi nee na maxaasina mawtaakum képp kuy waxati ci kooku la nga xam ci lu rafet lu mu def loola loola ngay wax loola ngay ngay continuer di ko waxtaane waaw ginnaaw yaay Maodo mi ngi sàngoo suuf la nga xam ci rafet ca moom jàkka jam defar ci seen dëkk ba tapi yam fa lal sonorisation ba nangam waaw la mu daan dajale su may aju màkka mu jox ma ko <laughs> ndeysaan waaw yaay Maodo bu bu am na xaalis ba euro lañ koy tudde bu duggee ci loxoom du ko jaay man la koy dencal kenn mësu koo gis rek waaw man la koy dencal euro bu dugg ci loxoom rek man la koy dencal waaw waaw su ma su ma nee bàjjan maa ngi dem màkk tàggu si ko rek mu ne ma ko yàlla ndeysaan ni ma waaw pour pour bu ko ñoom seexu naa yëg bu ko ñoom dan yëg <laughs> rek tubaarkàlla bu mu daal mu noonu rek yooyu lay sunu borom bëgg ñu koy tuddal ñu génn àdduna imaam Abdoulaye Ndaw mii ci ndànn ngeen ko doon dégg ci waxtaani fajar yi ñu bari ci yéen ci waxtaanu fajar yi lañ ko xamee waaw moom it tabaarakallaa daara jam defar ca dëkk ba ab loo la jël lépp bu kaare xaw ma ñaati mètre lay war a toll waaye moom la jël lépp def ko daara doo nga xëy di jàng di wàcc di ñibbi ak yeneen ak yeneen ak yeneen uskuru mahasina mawtaakum waaw ñi ñu faatule ku ci nekk nee nañu nay wax ci ñi faatu lu rafet wa kuffoo am masaawi ihim te ngeen téye seen bopp nag téye seen làmmiñ ca ya nga xam ne rafetul même su fekkee xam nga ko hmm? waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam ca ci hadis boo xam ne rawaawul buxaari muslim jële ko ci abu hadisu abu darnil xifaari waaw abu sarin al xifaar yi ci maanaam addis bi ñoom lañ ko jëlee ba dema ca tarxiib danga ko ca fekk mu wax ne yonente ba nee na man daa rajulan bil kufr aw qaala ya aduw allah walaysa kadalik illa xaara alayhi aw kama xaala nee na képp ku wooxee sa moroomum jullit ab yéefër bu dul yéefar yéefar nga mhm. képp ku wooxe sa moroomum julit yéefar lor nga ko waaye bu dul yéefar yow yéefar nga hmm? waaw mu jeex tàkk boo ko wooxeeb naafiq bu dul naafiq yow naafiq nga waaw boo ko wooxeeb bu dul naafiq naafiq nga boo ko wooxee ku bon bu dul ku bon yow ku bon nga waaw budul ku bon rek yow ku bon nga man daa rajulan bil kufr aw qaala ya aduwallah wa laysa kadalik illa xaara alayhi képp ku wooxeb julit yéefar bu dul yéefar nga te sax ah mbokk yi mu ngoog alayhi salaam mi ngi waxtaan ak xeet wi di leen fàttali rañaanam ma ak yem fa gisoon mu wax ca ne marartu laylata laylatan usriya bii bi qawmin lahum azbar min annuhaas yaxmishuuna biha wujuhahum waaw wa sudurahum fa qultu man haula ya jibril fa qaal haula alladina yaakuluuna luhuma annaasi wa yaqacuuna fi acraadihim hmm? waaw waaw mu ngoog nee na dafa romb ca rañaanam ma kere ba mu ànd ak jibril mu koy présenté asalam ya nekk foofa dëkkuwaay ya nga xam ne ci la nit ñi dëkk nee na ca la rombe ay gaa yoo xam ne yoruñu seen wexi bopp waaw ay wey monte ca seen loxoy lañ yor weyooya du weya nekk wey aluminium waaw nee na weya borom bi yaa ngay eh, xusi seen xar kanam ya ak di xusi seen dënn ya xarkanam kanam ya di nàcc dënn ya di nàcc ñuy xusi rek te te te mënuñoo bàyyi yonent bi daal di taxaw daal di fab loxoom tëj ci gémmiñam ni jibril ñi ñum doon waaw ma laaj ko jibril jibril ñii ñum doon mu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne ci àdduna ñoo daan lekk yàppi nit ñi ëw di di yàq seen der yi ñoo nekk nii waaw loolu moo doon seen liggéey yàq deri nit ñi ak lekk seen yàpp yi yàlla nañ ci mucc ngeen mucc mbokk yi yàlla na jàmm yàlla seen ak seen njaboot sallallahu alayhi wa mosoon naa wax ngir moytuloonu lorub jullit mu soñu ñun ñépp ci bañ a ab jullit mu ne inna shaytaana qad aysa an yubada an yabudahu lmusalluun fi jaziratil arab walakin fi taxriisi baynahum daf na leen balaa may jóge àdduna maa ngi leen di xamal ne seytaane wóor na ko ni fii ci Makka ak li ko wër ko fi jaamooti moom wóor na ma inna shaytaana qad ayisa wóor na ma ni fii moom ci Makka ak Madina ak li ko arab mu ngoog jaziratul arab il bi arab yi dëkkee mu ne seytaane moom desu ko fi jaamooti mu ne waaye am na liggéey bu mu desee nag liggéey mooy ataxriis ataxriis mooy fexe ba doomu aadama bañ doomu aadama ni moom fexe ba ab jullit bañ ab jullit ni moom xeeb ko ba moom bu am bu moomoon aljanna kii du dugg waaw nee na moom loolu moom dana ko fa man te su ko defee foofa gannaaw fële fi jóge mën nañ koo wàllante ba mu agsi fii mën nañ ko wàllante ba mu agsi jullit moroomum jullitam mu bëgg a xeeb diineem mbaa fi mu bokk mbaa ni mel ba tax mu jëlal ko rankin bañ ko waaw te bañ gi kat mi ngi koy teg ci lim nekk moom dug njullit waaw i waay ndaw lim nekk moom mii du njulit li ma nekk man mii moo di njulit déedéet déedéet ndax doomu aadama dox ba mu yàgg mu wóor ko ne buy faatu ci lii mu nekk lay faatu loolu amut est-ce que ci loolu lay dekki loolu amut te naagu ba yenn naagu yi seetaanee koy def ci nit naagu loola ba wan na nit ñi moom yaa ci gën yow ñi nga àndal a gën ci àndandoo yi ku melut néew baaxul loolu la seytaane nag yonent bi nee na moom la dese moom la dese de waaye ñu ko fay jàmm moom loolu mu amatul waaw waaye nag li mu dese moom mi ngi ma nga ci rek tabaarakalla alayhi salaatu salaam waxaat shiraarukum almushaa'uuna bin namima almufsiduuna bayna al ahibba albaaxuuna lil buraa al anat aw kama xaala nee na ñi yées ci yéen mooy rambaaj yi ci mooy rambaaj yi xeet wi ñu mooy rambaaj yi ñu ne ko waaw mu ne xeet wi ñu ci yées mooy yàqkat yi yàq diggante xarit ak morom ji diggante soppe yi ba dootuñ soppante moo ci addis ba ala uxbirukum bi waaw moo nee na mooy ñii bew ci ñu baax ñi ñii bew ci ñu baax ñi waaw loolu la wax moom alayhi salaatu salaam mbokk yi beneen bind nga noonu ci an najm ay 32 ci alkabair ñu koy topp ndax buñ ko xamee xàmmee ko man koo daw ba mucc ci yeneen bàkkaar yi ndax ku moytu bàkkaar yii